Bienvenue dans votre maison de production. GP, Gabon Production, Académie Médan les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.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 عزاري ملاسي أرجو برحمتي الله لا يضر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدر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 فلم تكن لي من أيا بنفسي بتيئن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمنا بالدارين يا الله lépp boo ko gisee wax ko ko di ko seeral fu mu néewul kon ñu ngi koy santaat bu baax di ko gërëm ndax xam nañ ni ko sëñ Bamba ñoree ne yoon wi képp a yitteem amul beneen ittee te ku xam boppam la xam fi muy teg kon ñu ngi koy ñaanal bu baax ci jëf yi mu jëf ak jëf yi muy def waxtu wu ne sunu borom kàttanal ko may ko fa nu gudd ba mu laq ngërëmal maam la ne ci jàmbaari yoon wi la bokk te du waxi rafetal du waxi masla wax ju dëggu la. jërëjëf ñaanal ko waaw ñaanal. jërëjëf Mbacke. di la gërëm. ndax tey jii tëlewul naa ko lool. waaye nag mënumaa ñàkk ñëw. te màggal gii moom. lim ma wax léegi rek. maa ko sañ. ndax sëñ Modou si Abdoul Khadir. moo ma fi daan yónni. 98. 98. 97. kon yàgg naa ñëw peex at mu jot man sëriñ moo Modou Abdou Khadir daan yebal ma yendu fi ànd ko ak moom booba màggal gi demee demeegut nii moo tax mbirum sëriñ Touba kenn xamul lu mu doon ndax xaw naa cee gëj ëpp na fukki at wala mu jege ñaar fukki at waaye ba ma fi mujj ak ni ma ko gis ren différence bi rëy na lool kon dañ koy ñaanal rek moom Ablaye mii nga xam ne. dundam jëpp jox na ko Serigne Touba pasteefam mooy léppam yàlla na ko ci yàlla gën a dimbali amin ci yoon wi mu nekk ci bëgg Serigne Touba ak jéem koo liggéeyal ba àgg fu mu bëgg àgg amin dimbali bokkam yépp eh, Mbacke Balla ala jablaay lu ngeen ko de santé bi ala jablaay jumaa ji ala jablaay ndox mi ala jablaay daaray alxuraan ji ala jablaay sa baay dimbali na ko nag ndax Cheikh Abdou Khadre dong la yaakaar te lu moom Cheikh Abdou Khadir ànd nag bokkam yëpp sëriñ Cheikh yaa gore bala si taala nga bis bi de moom mii wa alaaji Ablaay ne Cheikh Basiru mii rëccuwuma rëccuwuma lu ma doon yaakaare baayam lu ma doon yaakaare baayam waaye nii mu ma def nag waaye nii mu ma def nag sëriñ Moodu Abdou Khadir moo tax sëriñ Moodu Abdou Khadir moo tax daana tegu ñam daana teg aw ñam du ko lekk du ko lekk ni ma wër ko ni ma wër ko ma di ko wër ma di ko wër ba ñam wi sedd ba ñam wi benn bis. benn bis. maa ngi moom ak sëñ bi. maa ngi moom ak sëriñ bi. nuy jëfandiku. nuy jëfandiku. mu ne ko Ablaye Mbaye mii kat. mu ne ko Ablaye Mbaye mii kat. bis na ko tey. bis na ko tey. tuddee naa la ko. la ko. laa ilaaha illallaah. Ablaye Mbaye mii suñu na wax na dëgg de. Ablaye Mbaye mii. Ablaye bis na ko tey. bis na ko tey. tuddee naa ko. tuddee naa la ko. loola. loola sëñ Basiru nee na loolu lu wér la. loolu. loolu. maa ngi ak sa juróomi paas yi makka. maa ngi ak juróomi paas yi makka. lu ma noppee kaf. lu ma noppee kaf. nga def ko bëgg nga ma lool. Mbacke bëgg nga ma lool. ñëwante nga ma lool. ñëwante nga ma lool. ndax sa baay ndax fii. fii. li fi am li fi am. Cheikh Abdou Khadir moo ko fi def. Cheikh Abdou Khadir moo ko fi def. waaye diggante Cheikh Abdou Khadir nag. waaye diggante Cheikh Abdou Khadir nag. ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Moustapha. ak keroog ba sëñ Aliou. ak keroog ba sëñ Aliou. mujjee bustaan. mujjee bustaan. sëñ bi boole ma ak moom sëñ bi boole ma ak moom. ni ma bokkal ak moom. ni ma bokkal ak moom. topp tooko ko. toppatoo ko. si ñu koy ganale si ñu koy ganale. ba muy dem. ba muy dem. mu ne ko mu ne ko. Alioune Alioune rafetal njot rafetal njot te dalum xel te dalum xel sa maam sa maam ak sa baay ak sa baay fagul na la lépp fagul na la lépp loolaay lii loolaay lii cëy allahu akbar daaray ya allah basaraka ya basitul أعمال لي بريضا فاذكر مبعثتك daarayni ya allah ki xam ni képp kuy murit xam nga ko di mu laata nekk porte parole kii toog kii toog wallaahi wallaahi maa ngi koo giñ ci yàlla maa koo giñ ci yàlla su defee discours ba pare su defee discours ba pare dafa am ñu may laaj dafa am ñu may laaj ndax Égypte la génne ndax Égypte la génne man leen déedéet man leen déedéet kër baayam sëriñ Sohaybu lañ ko jàngale kii toog kii toog lii tubaab di wax lii tubaab di wax il faut mettre les hommes il faut mettre les hommes à la place qu'il faut à la place qu'il faut bu nu mérité bu nu mérité kii de li ñu ko jox mérité na lii mu ma defal nag lii mu ma defal nag ëllëg ak si biir ëllëg ak si biir yal na yéex lool yal na yéex lool wax ne daanu wax ne Serigne Bass Serigne Bass Abdou Khadr Abdou Khadr Serigne Ablaye Mbaye Peex Serigne Ablaye Mbaye ba mu ñëwee ba mu fekk Serigne Alioune Mbacké fekk Serigne Alioune Mbacké Serigne Cheikh Mbacké Serigne Cheikh Mbacké bu Serigne Alioune bu Serigne Alioune bu Serigne Moustapha bu Cheikh fekk fekk Arabi Niass Arabi Niass lu mu def lu mu def ba mu ba mu yéegee ca kaw ñu ko Mansour tànk ya ñu ne ko Mansour Mbaye tànk ya baaxul mu xuus mu xuus ñëw ñëw bokk na sama bokk na ci sama histoire dëgg la li tubaab di wax li wax histoire li tubaab di date historique li tubaab di wax une date historique tey ci la tey ci la le 9 ca man soo masaan dem Touba. man su ma masaan dem Touba. daanaa fa dem daanaa fa dem nag. ba fa Serigne Cheikh nekkee. ba fa Serigne Cheikh nekkee. di taw Serigne Moustapha. di taw Cheikh waaye. waaye. at yi ma dem Touba yëpp. at yi ma dem Touba yëpp. fu ma jëm. fu ma jëm. ci moom ko moom. ku amul péete. ku amul péete. doo am cër. doo am cër. kii rek sama péete la. Cheikh Bassirou Abdou Khadir ci kër Khadim. ci kër Khadim. Mm, kon kii kon kii waa waaw man nag li ma jaaxal du ma am ñetti fan ci yàlla wanu ma ko ci gént billaahi wallaahi tallaahi suma doom bi ma ànda tuddee ko Ahmed Iyane da dafa waroon a takk jabar ndaw si bañ demee bañ koy maye ñu ne Touba dëkk ma tëdd ci guddi ga li si xaaruma gis sëñ sëñ bas mii mu ngi toog ci sàppe yi maa ngi ba man yi gis ko mi ngi def ni kursa ma ne xay sëñ bas mii nu ko indi fii ci suñ jumaa ji ca ca man kenn waxuma ko ma wàcce mu ne ma sëñ Saaliw moo ma yónni